loolee nag wax ci jubluwuma ca ne nii laa mel jubluwuma ca loola ndax nit du wane boppam sa borom a ko mën a wone wala mu réer waaye boo wane sa bopp réer kenn du wone sa bopp fu ni taxaw ne mën a dana fa taxaw wax ko ñëpp ne ko du yow waaye moom mooy moom mooy la sun borom bi doxale ci ci ay bindeefam damay nekk got te njël benn xilaaf ak sëriñ Abdul Ahad di jàngale ba yàgg ma gis xaadimul Moustapha mu ne ma téere bi moom laa yoroon ca Gabon jox ma ko ne ma barkeelu ji ñu sëriñ ma toog ab diir ñuy bëgg a julli tisbaar Serigne Saliou ne njarañ ànd xaal lool ñu julli ba noppi mu daal di dem wooma te jum nun ñaar mu ne sëñ Abdoulaye kat damaa woowoon ne ma kaamil bi nga sëñ bi yoreen ci gabo des ko ko jox nee na nag kenn yooyu ko kudul man ba sëñ Abdoulaye jox na ma téere boobee téere boobee nag dama ko doon jàng tey jii dafa war a wàcc tey yow it la ñu taamu yaa koy yaa koy xatmu àggaleel téere bi Sëriñ Tuuba mu ne ma àggale nga ko ba noppi mu ne ma xëj wii ci kaw ma ne ko téere bi ma sëñ bi wanoon kat fatihatul kitaab ba dafa xar ba moo ko bindaat mu ne ma miin loolu sëñ bi ko bindaat ma ne ko kon nag xam nga ne yaay Sëñ Tuuba loolee nag doy na isaara ci man sama diggante yéen téere ba sëñ Tuubaa yoroon ñu joxe ko ñu di ko xat mu ñëw ba ak ni ma ñàkke solo sëñ bi jóg ma ne ma yaa ko wara a xat mu ma xat mu mu bóob tàllal la ay loxo maa xat mu daa ko yom kat yaay sëñ Tuubaa mbaa dégg ngeen wax ji maa ku gëm maa ku gëmoon màngook loolu ñu bind kaamil ba ñu seeni baay ak seeni maam bindoon kaamil ba dama fa waaye loolu wóoruma ko woon a wax waaye nag fi ñu toll yaa ngi sukk karaam ànd ak sag njaboot ku nekkee ki nga wax lu baax waaye lépp nag na ngeen xam ne sëñ Touba la waaye sëñ Touba loolu la ma may boppam may googu nag doy na ma sëkk te war na noo doy kaamil ba sëriñ bi yoroon ca gabam ñu jox ko Cheikh Abdoul Ahad mu ne sëñ Saliou ko war a yor jox ko sëñ Saliou sëñ Saliou tàmbalee yor yor ko ca Tuubaa ba xat mu ba jot mu ñëw tëjoog man ca got ne ma xat mu ko ma àggale xat mu ko ne ko waaye man de ba ma wanoon xët bu njëkk ba da koo bind mu ne ma ko mu ne ma lan ma ne ko bi ma wanoon ne moom la yoroon de xët bu ba daa dem moo bind ba ca des mu ne ma xoolaat ko ma daanu bi suuf ne ko tee nga ma ne woon yow nga ma ne woon yaay moom nii la mbaa dee ngeen ko bëgguma nag ak net bi waaye nag bu ngeen dee def lii nag war na war naa leen a wan ni leen maay kan maay kan jooju nag néewuma leen waliyu laa duma ko waxuma leen loolu de néewuma leen mbokkum sëñ Touba la duma loolu damay taalibeeb sëñ Touba bu ma jàpp ne gërëm na ma loole ngërëm laa ko jàppe lañ ma tànn def loo ma loolee boroom ngërëm a ko man ngërëm lu naga ma gën a lug billaayam ngërëm lee ma gën a lépp ngeen xam loolu sama diggante ak yéen tey fooga ngi ci doon am nag waaye leeral dana ci am tey la ca des du ma ko wax ndax baatin waaye kaamil boobu yi nag liis man di wax moo gën a rëy foofu yi mu jaar lu jóge ci loxol sëñ Abdoulah sëñ Touba dem ci loxol sëñ Salim eh, sëñ Abdoulah mu ñëw ci loxol sëñ Salim ñu di ko wàcce ne ma xat mu te waa kër sëñ Touba gépp nekk bi fugraas yëpp nekk bi man mu ñàkk solo mais ca got na fa xop ñu ne ma yaa ko yaayoo woote loolu de ku mu doyut dara du doy ku ma doy dara dara dara du la nag man am naa ko le bi naan yàlla gërëm na ma yonente bi gërëm na ma Cheikh Ahmad Tidiane gërëm na ma Cheikh Abdou Khadir yi gërëm na ma Cheikh Abal Hasan Saasal yi gërëm na ma ku ma gërëm ndokk waaye man mii ku ma gërëm ndokk gërëm ndokk foofu yi ci lan nekk nekku na feneen loolu yi dama bëgg a dalal seen xel ci lii ngeen di def ndax nit nit mën na fee romb defe ne da di fof wala defe ne di yëmul njariñ waaye foof yi kat na ko ñuy ramal te foonu xeeñu loolu foonu ko xeeñu ko gisu ko gisu ko dégg ko hmm? Hmm? loolu yi baraana ku ku ku nekk ci ci yoon bi ak ci kaw jamono lu mel noonu yu poonu waxatuma laa nag ñu di ko ko defal poon rek yëg ne am na sax amul yëg ne am na rek loolu amul am na rek kenn kenn ke ci yoon bi gisuma ku ku ko yëg boobu waaw yéen xam kon bu leen jàppe ne lii ngeen di def pola déedéet du po du man sëñ Tuubaa dulu la tay dulu du la tu tey sëñ Touba la ko xam bu baakha ba god goge nek na fa di jang di jang di jang ba ne sikit rasulullah lay toog bi tu ba toog bi ñu démarré Allah, loolee kat ku ko wax te du deug sawara nga jëm da ko ragal sawara la waxu waxuñoo man de dañ may deglu bay ak ñu ne meng magge su gisatuma kenn loolu moo xamal leen ba tey ku yóbbu gëm ku yóbbu weddi ku weddi da ko gis baraana ko fi weddi te xam nga ne weddi nga loo wër ta weddi ci dëkk bii weddi sama fi tay ba tay de waaye ku weddi réccu nga ko ñëpp xam ku weddi réccu nga da ngeen sant yàlla bu baax a baax sant yàlla bu baax a baax a baax na ngeen ko def te nag dellu nu delluwaat ci ndigal dem leen ji yàlla bu kenn bokkaale yàlla sama borom moonu moom te bokkaale wunoo kenn na ko ñëpp jàmm ji Rasulullah mooy kii tax mu bind ñépp na ñëpp nangu loole te dëggal ko sunu kii ma nekkoon kat nee na maay surgab kooka Sëriñ Tuubaa nee na maay surgab yonente bi kon yonent bi noonu la mel ca sama aj ga ba ma daanoo di jooy fa kanam Rasulullah la taxoon ma doon ko def dama ne ni mu mel te nee kii la kii la kii la kii kii kii la kii nan la mel loolee lay xalaat nag ba daanu sedd guy ni Sëñ Touba mel ne kii nag moo tax mu mel noonee kii man kon mooy waaye la ma koy wax lépp kat ñaanuma dee Màkka ñaanuma dee Madina Tuuba gii laa bëgg ñaan dee fa ña sol ma ko sëñ Tuuba kera bañ may ñaanal ba ma sëñ ba ñaanalee ba may aji ca euh, njàppandal nit ñi lépp ci donga yi jooy na dangaa tuuti ma yëkkati sama loxo ne mbaadu tuutaay bi ngeen defee ne danaa fa dem ma ne leen pour Tuuba duñ ma fa ku ne dama xool ma ne leen dinaa leen nuyuwaat bii du ma dee xaw sëñ Tuubaa mii lay àndal du ma ànd ak keneen te loolaay neex Rasulullaay kat kaddu googu ma wax mooy neex Rasulullaay ndax Rasulullaay noo def sëñ Tuubaa rek neex na ko waaye noo def sa bopp nag yàqule sa bopp noo ko def yàqule noo def sëñ Tuubaa nag defaru ah waaw loolu seen diggante ak sëñ Tuubaa la kon na ngeen góorgóorlu bu baax te xam ne wax naa leen fii ba tey ne leen sama yaakaar kees tànnu ma kees tànnu ma Touba ma tànn tànn Touba nag nan la yàqoo bu ma kees tànnoon du ma wóolu sa bopp. bu ma nee woon nañ ma yóbbu kees du ma wóolu sama bopp ba may nekk jàngale di da ak doonub daanakat ca àll ba ñu ne kees lañ la yóbbu waa kër sëñ Tuubaa tànn ma man nag la ma waxtaanoon ak sëñ Abdoulaye mu yëfi biir mu ne ma Saliou Touré ba ma teg sëñ Tuubaa lànk naa li nga ma wax du ma ko def lànk naa du ma ko yëfi batin la waaye may fañu fañ ma tànn ca Tuubaa andi ma kees ragalu ma dara jàquma dara tiituma dara ndax kama tànn du tànn lu yàq ker tànnuma kat ah kees tànn ma sëñ Tuba ma tànn tànn googu ku ci ànd njëriñu ku ci àndut yaa xam xuluwuma kat yéen ma tàngaloo ngeen di ay mari ma war a nekk murid saadiq ni yéen yéen a ngi joolay ko wadda ka dem damay kuuc kuuc di yéen sama ta sa ki ki ngeen ànd ak Sëñ Tuubaa ma ànd ak Iblis du doon noo bokk wàccukaay kenn noo bokk kon yaakaar kon ko fi jógee na góorgóorlu bu baax a baax a baax te wattandiku bu baax a baax ku ci ku ci ne na saxoo laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah ak bëgg sëñ Tuubaa ak liggéey ngeen bennoo ci diine bennoo ci tariqa bi bennoo ci dëkkandoo gi ànd leen ak ñëpp bu leen bañ kenn bu leen ne morit ba bu leen ne tijaan bu leen ne xaadir bu leen ne kenn ku dib jullit ànd leen ak moom loolu kat la sëñ Tuubaa santaane woon loolu maa ngi koy feddaliwaat ci yéen bu leen bañ kenn liggéeya leen ñëpp àndi leen ak ñëpp lii ci tege nag adduna du jag kenn du jam la nga bëgg fi mu toll baadoola yaa ngi baadoola yëpp yëpp a ngi na amuñu lu ñu lekk waaye fii ne bu buur bu buur yi la taal te Amérique gi gi nekk ci bopp jamono fii ne buus a gën a jaaxle ñëpp waxatuma laa nag ña dul buus fii ne ñay ñay añe ñay ñay ña ñàkk ab ñàkk ab reer ñoo ñoo ëpp jàmm buus te yàlla nañ te yàlla te yàlla nañ ko buus sol julli ñooñu muy rey kon nanu sant nun ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp te laxasaay waat te dooni taalibi ñun ñëpp nanu sant waat te laxasaay te dooni taalibi adduna jii itam maa ngi leen di fut mi ku lëggéey mooy tax dara yëkkati buur ba du la may dara yëkkati kee du la may dara dara du la may dara lu dul bari noonu ak xasteeg bari bakkaar futtiku liggéey dunde saw ñàkk képp lay jariñ nekk ci biir kër sëñ Touba di bëgge sëñ Touba di yaakaar sëñ Touba di jariñu ci sëñ Touba mooy yoon bi leneen lu man doon nag nopp lu leen fi amul njariñ bu ngeen ci duggee yi da ngeen di sonn rek te bakkaaru te dara du ñëw lu bari ba lu coow lu bari bari bari njariñ li de Touba gi lay bari di wuti njariñ Touba waaw nun nunu war def nun ku fa wacc Touba di wuti njariñ Ndakaaru da nga doo buur yaa ngi raam fa Touba di joxe seen bopp te ñu fekk na fa war na noo gën a laxa saa yu bon bu buur yi raam nuy nuy nuy daw di wuti leneen fu loolu ñàkk fu la la ñëpp a ngi raam adduna ak àllaaxira lépp a ngi balaa kenn jariñoo ti ñëw ci sëñ Touba adduna ak àllaaxira lépp a ngi ci loxol sëñ Touba kee fa kee fa lu ko neex rek la mooy neex yàlla lu mu bëgg kenn mënu ca dara lu mu bañ kenn mënu ca dara ñëpp maase gën a defaat sëñ Tuubaa sa xol def ko muy sa yaakaar lépp ñun ñëpp nan maase def loolee ko ko def jariñu foy tere naa ko bu kenn ko diine lislaam la nu yor loo loo nar a tëggee ko fecc demal di ko sikkare wala nga di ko julli yàlla loolu lañ di dëgg Rasulullah kenn yónni wu ko woon fecc de seen tubaay kenn déggut kenn déggut muy feccul jubluwuma ci kenn réew mi mépp laa wax lépp luñ yónni wut woon Rasulullah ab jullit waru koo def ku ne laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaah luñ luñ ko yónni woon lu ñu ko ne woon nang ko tere ko ab jullit wër ta def loola te po bokk na ci lim tere mësunoo gisi nitu yàlla koo xam ne polo am na te la mu amee te polo ko amee gisuñu ko fenn nekku tib téere lu nekku tib téere nag jër ta def bakkan ak saytaane ak rek la yooyu nag dañuy loreel te duñuy jariñe maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp na ñëpp maase ci ci ci tege ci jubug lislaam góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi gépp gone góor gu bu fi nekk la ngay wut ci yàlla tàmbalee ko ci say waajur boo ko bàyyee say waajur da nga sonn te doo am dara loo comaay te comaay te tuuba wacc fa say waajur da ngay dellu si waat rek sa kañas bàyyi soose ak sa néegam boobee ngay xëy de ca ngay mujj tëddal waaye doo gis dara sans borom de moom du soppiku mukk sëñ Tuubaa yi dangaa nag sans ku tege ci yoon ñu dimbali la ku tege wut ci ñu seetaan la yéen ñëpp na ngeen maase topp waajur yi fonk mag ñi muñ maanu ci lépp bu kenn dugg ci yenn détail xas kenn bu ko kenn def yooyu yëpp na ngeen xam ne ànd bii nu ànd damaa bëgg yowmal xiyaam sëñ Tuubaa puukare woon ku topp bakkan nag du du la puukare woo mukk nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax te nekk ci ndigal yooyu li ci tege nag nit ku ne daa war a bëgg a gën ab sëriñam te léegi ku ne day dox doxeenu doo mel ni sëb sëriñ sëb sëriñ saa boo jàppee ne moo la gën da daal di jàpp ne doomu ma la gën kon yow ci suuf ngay féete ba faw te sëriñ bi lan la la gëne man la ci yàlla demal wuti yàlla demal wuti yàlla waaye bu dee wuti yàlla nga toog ne duma wuti yàlla fa nga naa bàpp mu demoo ci la fa hmm? waaw sëdd na kay sëriñ bi diggante sëriñ bi ak ak Rasulullah ñaata at la junni at ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci la gane àdduna ba mu doxee doxee saxaaba yi ak fe jotu saxaaba yi fa Rasulullah sallallahu wa sallam bu toogoon def ni nit ñi de booba moo moom ba mu na nit ñi de fekk na leen ba ña defoon ni seeni morom fekkuñu kenn fenn yàlla des koy jaamane di su ko doon sant ñëpp nag ku fi teew tey noo ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa yàlla nga sun borom jégal ku fi teew ku andi jàngoro yàlla na ko sun borom sàmm ku fi teew ku ne andi woon fi gàtt fan yàlla na ko sun borom yokk ku andi xol bu bu nit ko sun borom raxas ba mu set wécc ba duutu bañ kenn ki gën a am jàmm mooy ki bañu kenn am nga jàmm ko fi teew tey yàlla boo amee noonu yow yow it yàlla boo noonu kenn xayra sawaayi laqani hada alladi xasayara umri ridan wa xayara man qalbuhu tahayyara billahi muqib السرير بلدت أبدل البزار ما لا يزال من بسار ويمنع لي النزار وغادني بالكرم ملكت أبدل البزر ما لا يزال من بسر ويمنع لي النزر وغادني بالكرم نفو النبي المنتقى زب لخير المتخى وخادم مع التخى مؤمنا لحرمي يسر خير المرسلين مع الشهاب الأجملين وآله المكملين إخدامه بقلن واجهني أجر الجميل في خدمة الماء الخمول فقد من له التميل مبرعا من حلمي ملكت أحمد سنين كل وخاذ الفنون وسالني عن الأنين وجعل بار سقمي إلى سوى قلب ابتراء لم ينهم منطق انتراء ولا سر سبتراء وسألني النقمي لسان الذكر بالسكور الرأي إلهي سكور وليس ينحن النكير ولست بالمتحميم إلي قعد مالكي مزهزع الهوالك أنير قلب سالك بزاهر ومبحني ثبت ربي خدمي بالمصطفى المقدم وسامني الندم وجالبات سلمي نبيت إبليس الله بالله ربي المهين لخير النحو ويهين بالله ذات علمي يقد قدي المريد للقادر الباخي المريب مزهزها كل مريض إلى شوى نبي نبينا الدرر لخير الذات والخرار وليس ينهن السرار بإذن رب الأكرم فزت بذنب الأسنات سيدة لمحسنات مريم فقت موقنات عند الذي لم يدرك كن فيكون لقيقات خير رسول الانتقاد وبيك فعل واحتقاد ولم يكن لمشركين لم يخفى عند المؤمنين كونوا قريب المحسنين يا أم خير المحسنين محسومة من شرك يقودني لمدهك ما أنك بل قد فزت ببسر مضحك كل تقي مدرك واجهتك اليوم بما يديم لي خطا بما إلى احتواء سابما من خير خسد الركيب أنت سلالة الكرام مع من أهلك حرام وأنت ذات الاحترام بالانتحن لسركيب